ñu gis euh, yaama ngay ngay de voix di woy di di yeete donc tey ñu gis benn série bu tudd série infidèle mu dem ba ñu ne dootul dawati ci benn télé ñu gis si benn rôle euh, ki nga xam ne ne mooy leen a joué si benn rôle bu vulgaire bay summi string noo xalaatee loolu. <laughs> waaye leneen li mu simmi dafa dafa dafa simmi baa garaaw. waaw kay leen leen na waroo woon simmi du dëgg sama rakk ngi ci sax tubarkalla muy ñilaan mais leen dangaa simmi la mu simmi nag tubarkalla ku ko simmi am coow lu toll nii waaw waaw route dante la tubaab liggéey dafa daw dellu Paris ñemewu ko mais nag peut doo xam doo sax xam li xale naan doo sax xam mais la mu simmi kenn du ko simmi ci millier nag mooy indi li mu simmi fi mu ko simmi moo tax coow li toll nii du dëgg waaye bu ëllëgee te peut-être dootu ko defati xam ga loolu waaw ñuy xool bu baax xale yi rôle yi waaw rôle yi nañ koy xool des fois parce que am na rôle boo xam ne da lay yàqal du tey rek la la yàqal mais mën naa yàq suba waaye léegi xam nga yu mel noonu boo koy def booy wax ci sa moromu jigéen day mel ni comme jalousie la du jalousie leena man xam naa ni su ma ko màggee bu dee maa ko mag bariwul mais rôle daal damay xool daal man bu doon man la ñu jox ma yenn rôle yi am na yoo xam ne du ma ko joué man boo ma joxul rôle boo xam ne rôle ku fànk la bëgguma voilà bu doon man la daal bu fekkoon man la laa wax du ma leena mais bu doon man la du ma jël rôle boobu waaw parce que Sénégal dëkk bi nu nekk la duñ la baal dara tey boo amoon conseil yooyu jox sa rakk yi ñi nga xam ne bëgg nañ dugg ci cinéma bëgg nañ dugg si showbiz muy woy bi bëgg nañ daal teel a fës teel a siw lan nga leen di dénk pour ñu gën a dal. waaw pour ñu dal rek xam nga showbiz dafa doy waar man bu ma sañoon tey showbiz bi dañ ma ciy génnee ba ma set wecc bu ma sañoon tey damay génn ci showbiz bi tout tranquillement parce que nag dafa metti quoi parce que showbiz li tax mu metti mooy déjà booy dem rek dafa metti nga bokk ci showbiz. moo Modou kan moo la jox yére bi xam nga fi ma génn tey dafa nooy matataak ma seer ndaak Pape Aan borom aan xeer jaar ci bopp bi yooyu yëpp ci showbiz la mais dafa am leneen lu ne ci biir showbiz dafa metti xale yi nga xam ne ñu ngi bëgg a dugg nañu réfléchir bu baax a baax nañu réfléchir bu baax du du du du ay neex-neex moo ci nekk li ci nekk méttit moo ëpp neex-neex bi diñ ci dégg lu ñaaw dañ la saaga te xamuñu la dañ la wax wax bu ñaaw donc showbiz neexul di ñun surtout boo ci nekkee jigéen lu si bari pour sa sa am jëkkër sa day xaw a tardé tuuti parce que dañuy foogoon ni li li li li sénégalais lambda bi di wax moo ne ci yow te xamuñu la soo bii daal dafa métti ndem ci góor ñi la métti saka jigéen ku ciy bëgg a dugg daal bàyyil sa xel ci lu baree bari nga moytu lu baree bari parce dafa bëri ay pax te pax yi daa bari xaaxaam ak ay xottu butéel loolu mooy soo bii ñu ngi lay bu baax di la kontaan si sa disponibilité aussi. ma kontaan nag tey si mariage yi ma dégg yëpp nag Aïda Samb P yàlla na ko yàlla lafal cet ak kan Jami Gueye yaa ma bu Jami Gueye Médoune defoolu rafet Médoune defoolu rafet Médoune sama xarit la kon buy takk jabar war naa ko yëg waaye foofu mu ko takkee neex na kan Babacar Diaspora Bamba déedéet du Bamba de. kalla Matar Subatel moom dam daa takk jabar waa takk xew na démb bi ma koy wax xaw ma woon ni lay demee ma ni corona bi takk yee koy remplacer rib yi non heure koy remplacer incha allah la yàlla may borom kër bu baax waaw yow ñaanal lii waay waxaatal lii waay borom kër bu baax daan Seneweb ñaanal leen ma loolu bu ma kenn wax benn wax bu ma naqari nan ma ñaanal du dëgg ma am jëkkër bu baax jëkkër bu baax jëkkër bu baax jëkkër bu baax point barre